ñëw naa tey ànd ak euh, sama collègue sama xarit maître Sidiki Kaba ministre des forces armées am contenté lool ñëw ànd ak moom jaar nañu géréw ñëw nañ fii tey ci centre bi xamante ne mooy le camp militaire d'entraînement de Thiès ñu fekk fii équipe yu xarañ équipe yoo xamante ne wax dëgg yàlla seen taxawaay rafetlu nañ ko professeur Sylvie Diop jiite ko ànd ak lieutenant colonel Jean. ñu defal ñu présentation bu am solo mais équipe bi nek na équipe bu soudée tay nak niveau central ma ñëw ñu joggé niveau central ñëw xol nan la ñuy liggéey au niveau opérationnel mën naa wax na ñëpp la ñu yoré prise en nationale bi ñu yoré coordination opérationnelle bi ñu yoré stratégie bi ñu yoré donc euh, service yi xamantene ñoo ànd yépp ci poste bi ñëw nañ pour xol naka la demee ñu am ci satisfaction bu am solo parce que li gis dal na xel gis nañu maladie waxtaan nañu ak ñoom fële si géréw jël nañ seen préoccupation préoccupation bu nekk nag ñu mesurer ko war ko donc def loo xamante ne dafa war a ànd ak ay décisions yu ñu war a jël après ñu rafetlu bu baax a baax liggéey bi personnel yuy def surtout au niveau de l'armée parce que li ñu euh, donc euh, tey ndaje bi jàngal mooy que ne li ñuy wax armée nation dafa nekk une réalité boo xamante ne Covid bi wane na ko